maa ngi ciy def nag sama kéemtalaay kàttan wutoon naa ay jumtuwaay waaye mel na ne jumtuwaay ya saafarawul li ma bëgg moo tax ma mujj ko teg na le jëndoon naa fi benn kit boo xam ne àndoon na ak euh, euh, làmp buy leeral ak euh, micro extérieur waaye mel na na saafarawul problème bi lu ñàkk nag incha allahu danañu mës a am jumtuwaay yu baax yoo xam ne dana tax bu ñuy def ak yéen vidéo son bi mel ni leen gënal loolu yàlla mën na ko dogal bés waaye nag ñu ngi ciy jéem suñu kemt lay kàttan ndax maa ngi jéem sax di jege micro bi pour mu gën a neex a dégg kàddu gi nag moom fii la yem moo tax du mën a du mën a weesu fii tey nag ñu bëggoon a ñëw ak yéen ci waxtaan woo xam ni wii sama benn mbokk moom a ko xelal walla bokk ci baatu tubaab inspire euh, mu wax ma benn baat boo xam ni bii loolu laa xalaatoon waaye dafa mel na daf ko dekkal ci sama xel mu ne le Sénégal est un pays qui na mérite pas d'exister Sénégal daal réew la moo xam ne mii moom warutoon a am maanaam am réew mu ñuy tudd di ko tuddee Sénégal loolu nag li tax dafa bari lool lool ba jéggi dayo tàmbalee nag ca ba mu amee indépendance ak léegi nga xam ni kon dafa waroon a continuer di nekk colonie boo xam ne bii euh, euh, dañ koy yilif yilifaale ña nga xam ni ñoom ñoo nekk ca biir réew moomu ndax ku xam li nga xam ni moo xewoon ci suñuy maam baay yi ko fekkee maam yi ko fekkee avant indépendance ñooñu buñ la waxoon ñoom ñoo mën a comparer li nga xam ni xanaa ñun ñii sax juddu juste après indépendance ñun xam nañu réew mi nu mu meloon ak ni mu mel tey maa ngi tàmbalee nag ci éducation ak enseignement yar ak jàng nga xam ne diggante 1960 ak léegi Afrique référence la woon ci jàng ak jàngale niveau bi nga xam ne moo ci gënoon a suufee muy école normale yi bari na ay nit ñoo xam ne ñii ci Afrique gi doon nañu ay cadre ci école normale William Ponty bi fii la ñu génne woon ay haut cadre de l'administration ak ci njàngale ci leneen ak leneen Sénégal bërëbub jàngukaay la woon boo xam ne bii référence la woon ci Afrique tey jii gis ngeen li fi xew li fi xew ñépp ci teg seen bët ñi nga xam ni ñoom ñoo fi mës a jaar nag ci Senghor ba fii ñu toog bu ñu nee salaamaaleykum agsi ngay président ngay ministre ngay député ngay bokk ci bokkal ci biir rek yow sa doom dootul jàngati ci école yii nga xam ni moom la suñu doom yi di jàngee loolu li ko indi mooy njàng mi dañ koo tàmbali woon di ko yàq di ko yàq di ko yàq ba dara nekkatu fa bañ ko jaxat jaxatee ba nga xam ni taux de réussite bi mënatu la ne en parallèlement ay nit di créer ay école privée ñu jël seeni doom yóbbu ci école privée yi ngay tànn ba ca gën ndax lan am ngay moyens yoo xam ni état moo la ko yombalal baadoolo yi ñoom di continuer di yóbbu ci seen doom yi ci école yoo xam ni amuñu sax lu luñ leen jëndale mbubb bu école di tijji bu sa doom paree nga yóbbu ko mu dem jàngi bitim réew ndax am nga moyen ak lijjanti gi nga jël sa doom yóbbu mu dem jàngi bitim réew pendant ce temps école yi nga xam ne moom la fi tubaab yi bàyyi woon école yi fi tubaab yi bàyyi woon école cité Maurice Pilot école cité Balabé Randoulène Nord euh, école urbaine garçon urbaine fille boo demee nag ci dëkk taax yi dëkk boo dem fekk fa école bu mel noonu nga xam ni daanaka bi fi tubaab yi di jugee ay tubaab ñoo fa doon jàngale biñ fa jugee bàyyi fi ay hauts cadres yoo xam ni dañoo génne dans les meilleures écoles de de formation euh, d' enseignant tey jii qualité bi nga xam ni moom la enseignement bi am nga xam ni jàngalekat néew na ku ci mën a làkk français bu jub xanaa koo xam ni kii niveau bu baax la doon am bokk ci premier yi ba mu demee dem dem mënta fëtt université amul pexe mu dem dugg ci école de formation yi école bii lii ci nekk nii bi muy am enseignant yeeg syndicaliste yeeg état bi ministre yeeg ministre de l'enseignement ak directeur yi ñoom ñoo ko tër rendi ko ni ñuy rendeem xar loolu ñu jaar quota sécuritaire quota sécuritaire ñëpp xam nañu luy quota sécuritaire amul ci ñii ma leen tudd nag ku ci amul woon sa quota amul ay xale dem defi formation pare ba éco dara desul lu dul former ñu former leen ñu ne déedéet ña ñu jëloon doyul ñu daal di dem ñoom def seen yëfi bopp lii ma leen di wax moo rey enseignement bi tey dem leen ci école primaire yi gune yi fa nekk di jàngale góor ak jigéen new na ci ñu mën a làkk français sujet verbe complement français bu normal mënuñu ko loolu quota sécuritaire ko indi lu ne nag la ñu indil mbalit am waame mu indaale mbalit loolu moo rey enseignement bi kon ñoom dootuñu fi dugal seen doom ñaata curriculum lañ fi créé ñaata états généraux de l'enseignement ñaata ñaata ñaata réunion hôtel bu nekk ñu dem fa sali bu nekk sali ñu ñu ñu ñu koy lëmbee lu ne ñu def ko fii jël ay milliards injecté ko ci fu mu mujj dara fenn fenn enseignants yi ci seen bopp mënuñoo jàng kon mënuñoo jàngale ñu ñëw ci foofu dama ci sore mën naa mënoon nañ feen rek def ko tomb moom enseignement gis ngeen li xew abri provisoire bu ñu leen waxee durant soixante ans d'indépendance plus de soixante ans ñu ne leen ay abri provisoire am na fi école ya nga xam ne nag ñooy école cosaan yi moom bu amul ay bonne volonté yu yu ca jàpp école yooyu moom màbb nañu ba ba tasaaroo ndox amul robine amul douche tasaaroo ñu dikk ci réew moo xam ne mii kenn du fi fajoo ci ñoom ñoom ñooñu képp ku ci feebar ca bitim réew ngay fajoo ji pour lan parce que api hôpital bu baax amu fi bi fi tane mooy hôpital principal te seen hôpital la ñoom ak hôpital yu ñu amas ñoom rek baa doole yaa ngi nii di dee ci àll bi ci feebar yoo xam ni waroon nañ leen mën a faj ci hôpitaux yi bu fekkoon ne li ñu waroon a def defoon nañ ko depuis soixante ans ñoom ñi amas koom mën nañu dem faju ji waaye ñi amulus koom te bokkuñu ci nguur gi moom ci hôpitaux yi la ñuy dem xanaa léegi sax ngay dégg bi ñu xawee privatiser muy am sax ay effort yu ñuy def néew na bari na. te loolu syndicaliste yaag ñenn ñeneen ci biir ñooy xaw a yëngu tuuti léeg lekk mais dara feeñul ñoom ba tey rek maa ngi dégg suñu mbokk Iran Ndaw bi mu feebaree ñaanal naa ko yaakaar naa ne jullit ñu bare ñaanal nañ ko. jullit ñu bare ñaanal nañ ko parce que nag euh, ku feebar di sa mbokk loolu moo war a doon sa réaction bu sa xol di dundoo bu sa xol di dund mën ngeen a am ay contradiction ci ay tomb mën ngeen a wuute ay xalaat ci yenn yi am na yu la mën a naqari ci moom waaye bu ko dara dalee nag diw tiis da ngay ànd ak moom ca tiis woowa loolu lañ ko ñaanal gis nañu tamit ne yóbbu nañ ko bitim réew faj nañ ko fa lillaahi alhamdu wa shukru yàlla na ko yàlla gën a jox saafara waaye am na lu metti ci biir am na lu ñuul ci biir lu tax ñu koy faji moom bàyyi fi sénégalais yi lu jar laaj la te loolu du moom dong du moom dong ñaata chef religieux ñoo fi génn état bi moo leen jël faj leen ñaata député ñaata personnalité de l' pour lan ñu leen koy defal te duñ ko defal beneen baadoolo ban droit lañ ci am bu ci droit bu ci bu ci bu ci baadoolo amul ban droit hôpitaux yëpp a ngi màbb boo demee ñu lay valseloo nga dem Grand Yoff euh, ñu ne la amoo fi place demal wuti nga dem faan ñu ne la amoo fi place nga dem feneen ñu ne la amoo fi place te yaa ngi jugee luga wala Ndar wala maatam ñu lay wër-wërloo léeg ñu naan la place am na waaye ana say kayit di la jéggi di la jéggi ba nga dee ci couloir yi yooyu am na ci hôpitaux yi am na ñu ko ñu ko mën a firndeel fan yi weesu dégg ngeen fi coow li xewoon ci hôpitaux yi te lépp li ko waral mooy personnel bi amuñu qualification gestion bi des na ak yeneen ak yeneen ak yeneen gis ngeen li xew ci hôpital Dantec man sama xol dafa bañ sax di ci waxati lu ko gën a ñaaw ci àddina tooñ yañ fa tooñ ay doomu aadama tuur rañ fa tuur ay rangooñ ci lan jaay doole jël suuf soosu xaaj ko ci digg ba jaay ko ne dañ koy tabaxee neen alal ju fi génnul ci réew mi dugg fu mu warta dugg dañoo soxla stade dañoo soxla arène kon kay dañoo def lu leen neex ter bii ñuy wax naan mille et nangam milliards milliards laa wax leneen ñu dikk ñu ne sept cent cinquante milliards sept cent soixante milliards ci inondation yeeg leneen ak leneen ay ci yeneen te loolu lépp amul benn fifteen bu ci génn am na ku ma koy wax démb naan ma réew yëpp a inondé dëgg la réew yëpp ay inondé fu ne la am États-Unis c'est une puissance mondiale c'est la première la ñu wax day am ay problèmes yu mel noonu ay crue ak yeneen waaye xam nga luy problème wu 766 milliards yooyu génnul sama gémmiñ génnul ci gémmiñu ma Demba ci gémmiñu Macky sal la génnee à commencer nag par les milliards yi nga xam ne moom la ñu waxoon ca Sénat ba bañ koy supprimer milliards yooyu dañu ne woon dañ ko injecté ba pare kenn nekkul projet nekkul lu ñuy waaj itam lu ñu def la ba pare léegi li ci jaadu woon mooy dañoo waroon ne bërëb sangam def nañ fa nangam assainissement def nañ fa irrigation def nañ fa lii def lan lan la ñuy wax milliards ay pompes yu ñu jënd essence bu ñu joxe Eh, eh, eh, ay ay ga ay garab ay kii yu ñu ay nit nu mu tëdd produit phytosanitaire xaw ma lañ koy wax yu jox ay nit loolu mooy ay milliards sept cent soixante six milliards ba huit cent milliards da nga war a wax nit ñi ne leen fii laa ko def lii lañ ci def benn effort boo xam ne bi day tax ndox mi su ñëwee dootu fi ne wala bu fi nekkit am nay pexe plan décennal la waxoon loolu kenn tegu ci bëtam réew moo xam ni ba tey ñu ngi importer ceeb te ñaata bërëb a fi nekk yu ñu mën a ta yu ñu mën a bay ceeb boo xam ni boo autosuffisance amul au moins suñu trois quarts suñu trois quarts production soo séddali woon production Sénégal wala consommation Sénégal lu gàtt gàtt su dee ñeent ñett yi ñu mën koo jëlee ci suñu suuf yi te inject volonté dong la laaj amut diwlin ñu koy importer tey jii liitaru diwlin bi mi ngi jar loo xam ni baadoole yaa ngi dee denrée yi première nécessité yéen a ngi koy gis tey jii ñi ngi wax soble deux mille cinq cent francs kilo de soble bu doon jar deux cent cinquante trois cent bu chéré ba cher nit ñi daj nañ ci fan yi ci gaz waxuma la nga nga nga ñàkk mu cher mais gaz da ngay yor sa xaalis mënoo ko am yor xaalis Louga gii may wax nag li may wax je prends témoin tous les Lougatois toog nañ fi lu mat fukki fan yoo xam ni gaz amul ci benn boutique amul ci benn grossiste qualité produit bu baax soo ko déggee étranger la jugee ñu dëkk indil ñu ay produits périmés nag léegi boole ci Auchan dégg nga ñaata yoon ngay gis ay nit dem ci ay rayon Auchan filmer ko amul suite garab gu baax buy am étranger lay juge étranger lay jugee amul benn garab guñ fi defar gu baax fii bu baaxee sax suñu dawee tuuti ñu ne am na rupture tissu bu baax amu fi usine bu baax ba fi nekkoon sax di def dara ñu rey ko mu dee NSTS Sotiba ak yeneen luy baax rek suy jóge ci bitim réew lay jóge biñ fi indi ay chevaux de race fii ci Kébémer loola rey nañ ko mu dee nagu race bitim réew xar buñ koy impo eh, eh, tabaski Mali gi la ñuy dem wala Mauritanie ñaan Mali na ñëw na wala Mauritanie ñëwul te volonté politique dong la lépp lu baax rek bitim réew lay jóge buñ la waxee ne la Sénégal soixante ans après indépendance ñu yor l'armette l'armette ñaatam tracteur lañ fi indi fii nettaliwu ma ko nag ay nit a ko wax laaj leen ko Moustapha Cissé Lo intrant yi ak semence bi ak i tracteur ñu jox ko ay nit ñoo xam ne ñi mësu ñoo xam luy bay te baykat yaa ngi ci àll bi nga mënoon a jël village bu nekk nga affecté leen ñaari tracteur waa village bi yëpp àndandoo daje di fay entretien ba fay ki nga xam ni kii moom mooy moo mooy mooy conduire tracteur ba fayaale seen carburant loolu mën nañ ko ba tey da ngay jël charrette fas takk ci machine ji takk ci machine ki fi wala soo ko amul nga takk mbaam ba tey loolu ñu ngi koy am ci senegal réew moo xam ni mi géej gi jaay nañ ko li ngeen di dégg ñu naan dañoo arraisonné seeni gaal nangu seeni gaal Mauritanie wala Guinée wala feneen fital leen rey leen ñaata yoon ngeen dégg waa Guet Ndar di ko jooy waa waa Mbuur di ko jooy waa Kayaar di ko jooy parce que suñu ndox yi jaay nañ ko ay bato ñëw fi di ko manq ak machine yu rëy yu am doole kenn lekkatul jën yu baax ay yaboy ñu dem ba bu ñu demee ba benn yaboy mën a jar téeméeri dërëm wala juróom euh, quatre cent francs yaboy benn kon moomu réew nan lañ fay dëkkee réew moo xam ne mi produit bu bon dégg ngeen bërki démb ñu ngi wax naan dañ fiy dugal euh, OGM yi ma wax ci OGM nag dama bàyyi la leneen dama bàyyi leneen ci OGM yi am na leneen lu ma waxul ci OGM yi loolu lépp mi ngi ci réew mi ñu koy dund administration bi nag moom à genoux bala ngay am lu la metti nga soxla fi kayit du moo neewoon fast track kii fastu musiba la fas musiba musiba mu gaaw lool yow ngay citoyen ñu lay fayu loolu lépp nga dikk taxaw bëgg ay kayit ñu lay wër-wërloo am na ci xale yoo xam ne examen dañ koy dëgmal parce que mënuloo temps bi ñu lay jox pour pour clôturer du du gaaw wala nga yéex ko yëg nga jóg waroon a mën a taxaw benn suba lijjanti kayit yëpp ñu lay wër-wërloo administration bi yëpp dafay gaare bu ñu fi nekkee campagne électorale directeur yëpp a ngi campagne ministre yëpp a ngi campagne ñu naan la signature jom amul ngor amul bala nga am lu la metti nag say droit say droit am réew bu ñu fa nekkee dañuy seet citoyens yi kenn bañ a gaañ sa morom sëll bañ a yooy giir bañ a dem ak neen loolu la wolof di wax dëgg ngeen li xew ci location bi te lépp état bee ko waroon a lijjanti dëgg la locataire euh, propriétaire bi war na mën a yombal mais bu fekkee ne moom propriétaire bi dafa investiroon xaalisam pour dunde ko tabax immeuble am état bi yokk ceeb yokk diwlin yokk saabu yokk omo yokk leneen ak leneen la muy fayee ku mënta bañ a yokk parce que loolu moom la bëggoon pour dundee ko à sa ci la investir la mu amoon kon loolu état bi moo ci waroon a dimbali locataire bi ñu jox ko doole joj da ngay ñëw toog man luyewu ma lo du ma locataire du ma propriétaire du ma ci kenn kon faralu ma ci kenn waaye locataire bi bu xasee ba dugg mënatoo koo génnee wala boo koy génnee c'est la croix et la bannière te loolu waroon nañu état bi taxaw seen diggante juge leen ñu nangu suufu jàmbur yi say maam ak say maamaati maamaat ñu dikk jox ko ay nit façon ba pro d'accord na suuf dañ koy jox ki koy liggéey waaye lu ne na jaar yoon lu ne na jaar yoon ñi nga xam ne ñoom ay génération ay génération yu tegaloo téeméeri at ñaar téeméeri at ñetti téeméer ba juróomi téeméeri at seeni maamaata fa dëkkoon boo xëyee suba di ko dindi ci seen loxo na ko ci dindi dindi wu yiw bu leen amal njariñ nag parce que ñoom bu ñu exploité wul suuf si dañoo am li moyen bayu nawet dong la ñu am amuñu beneen moyen bu leen état dimbali woon du du ko këfin bi ñu jëlee seeni tracteur ka leen neex lañ ko jox réew moo xam ni da ngay seen fonctionnaire yu et di dem ni retraite ñaata fii ci réew mi ñaata depuis des années ñii li ma lay wax ñëpp ñi ngi ci teg seen bët ñu bàyyi leen ci seen post di leen fay salaire bi nga xam ni amoon na suñuy doom yu foo xam ni mënoon nañ ko occuper ñoom ñu dem à la retraite ñu bàyyi leen fa pour lan parce que jubadi te dëng réew moo xam ni ku mu neex waaye dugg comme tame fu neex Sénégal mooy réew moo xam ni Guinée gii Guinée Bissau maali ñu naan lan CEDEAO de déplacement des biens des dettes Sénégal la ni mbindoo keneen ku fu moo mën a jóge ak loo sori sori boo dikkee nu la neex ngay duggee bunt bu la neex ngay jaar mbokk yi moo fi toogoon di lim te danaa ci dellu dellusiwaat limal leen yeneen yu gën a ñaaw te gën a bon li xew ci réew mi mooy Sénégal du réew mu mérité woon di exister comme pays warutoon a tudd am réew lii waroon nañu dellu à la colonisation France mi ñuy wax dégage ak nangam France amu ci responsabilité ñi nga xam ni ci diiru juróom fukki at ñoom la ñu dénkoon suñum réew ñooñu ñoo am responsabilité parce que indépendance bi mu fiy jógee tubaab yi bi ñu fiy bàyyi lu ne lañ fi baax man Thiès laa juddoo chemin de fer laa foowee cité Balabé laa foowee xam naa lan mooy li fi tubaab yi bàyyi woon boo demee dixième la même chose te bari na dëkk yoo xam ni ba fa tubaab yi di bari jógee bàyyi nañ fa koom mu kenn mënut a xam état bi di seetaan di yàq barki démb ñu ngi jooy ci gaaru ba gaaru Tamba bi ak na mu daan doxe gaar yëpp dee nañ te gis ngeen li ko waral ak yeneen yoo xam ne tey euh, euh, àddina train moo ko moo koy doxal tey laaj leen ko suñu doom yi tukki train mooy doxal àddina tey ñu ñu rendi train yi xar xar xar suuf si dugal leen ci gaar yi dee ñu jël boole ci lépp lu lu dox ay ay seqraay yi jaay nañ ko ba toog jaay nañ ko ay kër ñoo nekk ci weti yi kon tubaab yi ku leen tudd tooñ leen ñi fi jaaroon ba ñi fi nekk tey jii ñoom ñoo yeew seen buum ci seen baat jébbal tubaab yi kon tubaab moom intérêt la xam ñu wax naan chef d'état xamul ay ami ay intérêt la am kon ñoom nii rek lañu ñu mën a jëflanteeg ñun ñun ñoo waroon a am fulla ak fayda kon Sénégal du pays bu mérité en attendant ñuy nekk pays bu baax dañu am dañu war a am courage yu dellu si dellu si nañu dem recoloniser rek joxe suñu bopp am sax ku ñu recoloniser wala bokk am fit sax ñëw coloniser waat ñu ndax boog sax ñu génn ci jafe-jafe yi xiif nañu mar nañu ragg nañu feebar nañu mënuñoo faju suñuy doom jànguñu yaakaaruñu avenir suñu doom ëllëg ñu réussir au moins ñun ñu noppalu suñu coono bi ñu nekk di dang-dangi kon lii képp ku ko jooyul sab xol moo wow wala ngay naafeq wala nga nekk ca biir donkaasi gi nga di noos waaye lii ku nekk teg nga ci sa bët mu yemale fi kàddu yi ba beneen yoon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.